naam conseil constitutionnel dëggal na bokkam ci jongante falum jiitum réew bu atum 2024 waaye ñu bëri dañuy samp laaj ci nan la Bassirou Diomaye Faye mën a demee taataan baatu askan wi te mu nekk ci loxo yi yoon. Euh, amoon nañ fi kaa Khalifa Sall dëgg la waaye boobu dafa fekkoon ni ñu woon ci élection législative waaye bii li ci li ci li ci xaw a spécifique mooy dafa nekk koo xamante ni moom mooy candidat bi moo war a dem participer si. si jeu ñu tegoon ko loo ko ci weeru avril bii ñu weesu waaye mën naa laaj ñu may ko bàyyi négandiku pour mu am liberté provisoire faw mu sàkk ko faw mu sàkk ko xamu ca xamu koy sàkk mooy ca ka nga xamante ni mooy dossier bi mooy juge d'instruction bi yor dossier bi te defe naa ci sama sama xalaat bu gàtt defe naa dégloo guñ ko ci fond dossier bi kon nag kooku itam euh, nekk na loo xamante ni lu jaar bàyyi xel la donc euh, Euh, liñ ci mën a jàpp daal mooy moom juge d'instruction moo war a joxe euh, liberté provisoire boobu te am nañ yaakaar ni dañu ci ci kaw principe constitution bi mën na ko jox liberté provisoire boobu. bu ñu sukkandikoo ci ku jiite programme ñetti élection ñu bàyyi ko mu dem taataan baatu askan bi ni candidat yépp day gën a taaral démocratie wu réewum Sénégal. constitution dafa wax ni euh, candidat yépp ñoo war a bokk ñoo war a yem bokk ak ak yelleef ñoo war a yem Euh, gannaaw ba ñu nangoo seen i candidature rek ñoom fukki candidat ñaar fukki candidat yëpp ñoo bokk ñoo war a tolloo ak yelleef ci ñu di traité. bu amul bàyyub du mën a dem ci meeting yi mënul wax ci public waaye tamit du mën a am temps d'antenne bi nga xam ne ni moom la ñuy jagleel candidat yi ci élection présidentielle muy doon lu njëkk ci taarixu réewum senegal